demee ñu dégg ko xam ne bii la tàmbalee beeree la mu jeex déedéet jubluwaayu alxuraan boo mën a loolu waaye jubluwaay bi dëgg dëgg kay mooy alxuraan ci boppam sax bi maanaam kalima ci anam bu gën a matale dafa fees mbokk yi ak ay jàngale sunu borom li mu sant ci téere mooy nañ koy jàng waaye di ko seetantal ndax buñ koy seetantal kat mbokk yi li ciy bijjee ci ay njariñ jëm si ci ñun lu bari lool la moo tax dama ni yeewu ci boppam ku ko bëgg a def da ngay jàng alxuraan xam li muy tekki ndax moo leen xurqaa ci dund gi alxuraan daf koy traité te ay njàngale yu ñor nag yu bàyyi koo ci ay yonent yàlla moom mooy génnee ci bindam alquran rawatina bind boo xam ni dafay nekk li ci ñi gën a baax ci mbindee fi suñu borom yi muy yonent yàlla yi salawatullahi alayhim ajmain démb gisoon ngeen li njëkk ci nettalib Moussa ma wax ne benn yoon la ñëw ci alquran takraarut mooy juddub Moussa ak tàmbalee loolu moom le qissab Moussa di gudd gudd ak li muy wasaara ci téere borom bi benn yoon la ñëw ci téere muy tàmbali suñu xasas tey nag suñu borom continuer ak ñun di ñu leeral nag dafa mel ni xisab Muusa xaw tuuti kon mu nuroo xisab Yuusuf alayhi salaam ci wii saa ndax waxoon naa leen ni Yuusuf rek moom moo am ñu tuddee ko saar traité ca ab histoire ba mu jeex waaye ñi ci des ñëpp ay cuqat cuqat la ñuy def ci saar yi ba seeni xisas egg Yuusuf it daanaka lan ko la ma waxal lépp dañ ko ko waxal ci biir saar wa am naa Muusa amut saar wuñ ko tuddee waaye mën naa ni xaw tutu ko ñu ni saar yëpp am na ca wàll ànd ak loolu borom bi subhanahu wa taala li ko tàmbalee ci ak nit leem fam jaar nu mu tërati ak juddoon fam jaar ak lenn ci firawna yooyu yëpp sunu borom nettali na ko ci saar bi di suratul xasas kon ci laayee fukkeel jéeg ñeent sunu borom di wax ni أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكله موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل kon ci ñaar fukkeelu aaya jooju ak juróom ñaar juróom ñett borom bi subhanahu wa taala dinu continuer di nettalil fan la yont yàlla Muusa mujj alayhi salaam te wax naa ne démb di qissa bi ci qissa yi gën a neex ci alquran la bokk waaye ci qisas yi gën a daw yaram ci alquran tamit la bokk waaye dafay gën a dolli aji gëm ngëm yàlla dafay gën a wirloo ni ak caay-caay am na tàmbali waaye amutut muñ borom bi subhanahu wa taala ginnaaw boo xam ne nettali na ñu juddub Muusa alayhi salaam sunu borom bi wala ma balaga ba mu jotee nag moom Muusa asuddahu ak dëgëraayam mooy waxambaane tigi nag mat góor nag wastawa ay yëppam daal di yemb ba mu matee góor dëgg-dëgg nekk waxambaane tigi ay mbiram yépp yemb foofu nag borom xam-xam yi dañuy wax ne mooy sinnul arbaïn mooy ñeen fukki at yonent yi suñu borom doon yónni balaa suñu borom a yónni ab yonent dafay matal ñeen fukki at allahuma lu dul wuute gi am ci Isa ndax bi ko suñu borom di yónni amal na ñeen fukki atam déet waaye bu dul loolu yonent yi suñu borom doon yónni dañuy am ñeen fukki at xam ngeen suñu yonent ci ñeen fukkeelu atam ci la ko yàlla wax yu mu dundaat 23 ans muy 63 ans mu génn àddina sinnul arbain nag muy ñeen fukki at bokk na ci tax wallahu aalam suñu borom di ci wax yu nit ki mooy gis nga nit bariwaana yu mu daan def balaa mu am ñeen fukki at bu amee ñeen fukki at dootu ko defati gis nga nit bu tolloo ci ñeen fukki at am xelam dafay yemb ñor xom léegi da nga gis nit yu bari yu mu daan def bu ñeen fukki xasee dugg rek mu commencé koo bàyyi ci la xel mi togg nag ba ñor ci la jëmm ji togg ba ñor waaye ci nga yegg commencement àllaaxira nag maanaam fa nga xam ne boo ko xasee yegg moom léegi da ngay commencé dëpp jëm àllaaxira waaye avancé too yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam aw xeetam seenu fan day romb juróom-benn fukk juróom-ñaar fukk ku jéggi da nga rëcc juróom-benn fukk juróom-ñaar fukk mooy ati xeet bi ku ko jéggi da nga rëcc kon képp koo xam ne passé na juróom-ñaar fukki at jóge juróom-benn fukk jëm juróom-ñaar fukk na yëg ni fi ne moom bonus lay dundee maanaam bonus bi ko yàlla may ci at moom lay dundee waaye dundatul ay at yu normal ndax juróom-benn fukk juróom-ñaar fukk lu néew ci xeet yi ñoo koy romb noonu la ko yonent yàlla waxee sallallahu alayhi wasallam kon sinnul arba yi muy ñeent fukk léeg-léeg bu fa nit yéegagut bu fa nit yéegagut yenn responsabilité yu kare yi lool lool ba mel nit nu bu war lu ko yées ndax nu bu war lu ko féete kaw ëpp naa jox doomu aadama ndax léeg-léeg da koy foyee moo tax boo seetloo yi ëpp ci ay masuliyaat yoo xam ne ay mag ko waroon di yore ay gone di ko yore ay njaxase ki rëq-rëq rek da cay bari rawatina nag lu jëm ci wàllu xaalis nga xam ne mooy fitnay jamono fi mu ne nii kon mi nga xam ni moom Moussa alayhi salaam bara rasuda wa sawa léegi nekk na waxambaane tigi nag am ñeent fukki at ay mbiram yépp yembo sunu borom ni aataynaahu ci lañ ko jox ñun yàlla xukman atte wa ilman ak xam-xam xukm fii li muy tekki mooy nubuwa xukman wa ilman suñu borom daal di koy jox nubuwa wa kadalika niki nii nag niki niñ ko defal najisi la ñuy fayal najisi la ñuy fayee almuxsinina way rafetal yi borom soo tala bokk na ci li muy fayee ñi rafetal mooy jox leen ay ndomboy tànk yu rëy a inna allaha la yudiu ajra man axsana amala léegi Moussa alayhi salaam bi mu tàmbalee nekk waxambaane Firawna commencé na kaa soupçonné alayhi salaam moom Moussa Firawna bi mu ko commencé soupçonné si yàqu aaya jii di bëgg ñëw li muy wane dafa mel ni Moussa booba génn na biir pale bu Firawna bi waaye nag léegi li muy gisanteeg Firawna baree tut bal sax waa dëkk bi dañ koo een ndax xam ngeen ni Moussa alayhi salaam dafa judd rek yàlla jox ko kàttan bari doole lool ay kéemtaani suñu borom nag di feeñ ci ay loxoom ak i xar baax yu bari te ko wa kadalika kullul anbiya Moussa nag ëppale ci ndax borom bi jox na ko tisaa aaya ndax da ko yónni woon ci ñi gën a saay-saay ci kaw suuf moo taxit borom bi da ko yónni ci yónnent bu metti waaye mu jox koy jumtukaay yu doy wa daxala mu daal dugg moom Moussa almadinata dëkk bi ala xiini xaflatin ci waxtu woo xam ne nit ñi dañoo nekk ci noppalu waxtul xafla mooy waxtu woo xam daanaka nit ñi kenn ku ci nekk yaa ngi ci yële yitteen lu mel ni nelaw borom xam-xam yi ñenn ñu ni waxtu digg bëccëg la ñenn ñu ni déedéet diggan ci misag gee la waaye bu dee waxtu xafla la ca gën a dëgër mooy diggante tisbaar diggante fu ñu jullee tisbaar war a def xaylu la ndax xam nga foofu waxtu xaf la la ndax ñu doon liggéey dañuy wàcc ci liggéeyukaay di noppalu di añ ñee di añ ñii di nelaw ñee di féexlu kon waxtu xaf la la dëkk boobu ci Égypte xam ngeen Égypte dëkk bu rëy la am na ca barab bu ñuy wax moom fiis ca barab boobu moom mooy Madina moom lañ namm ci al Madina ci biir dëkk ba dëkk boobu noonu la tudd moom fiis ba mu duggee ci dëkk boobu di moom fiis ala xiini xaflatin ci waxtu woo xam ni nit ñi dañoo nekk ci noppaloo li demee noonu min ahliha ci waa dëkk ba fa wajada fiiha Muusa dafa fekk rajulayni ñaari góor yaxtatilaani yuy xeex Muusa daal dugg ci dëkk bi fekk amaana ma nga woon ci yeneen mbiram ndax nekkatul woon ci biir dëkk bi fa wajada mu nekk fa fekk fa fiiha ci dëkk ba rajulayni ñaari góor yoo xam ni yàqta bi lañ dañoo songoo di xeex haada kii min chiati yi mi ngi bokk ci waa këram yi mooy ñi mu bokkal aw askan mi banu israil wa haada kële min aduwi mi ngi bokk ci ay noonam di waa kër firawn muy alqib fastaxaatahu mu sàkk ci moom ndimbal alladi waa ji nga xam ne min chiati daa bokk ci banu israil farak Moussa daa di ko yuuxu sàkk wàllu pour Moussa ñëw dimbali ko ndax dana xeex ak waa ji amaan na xëy na waa ji ëpp ko doole mu seen Moussa di ñëw di xëfër xëfër yi ñëw ak doole ji ko yàlla dénk ah mu daal di sàkk ci moom xitilim alladi min aduwi ci ki nga xam ne mooy ab noonam Moussa ñëw ni ko hee bàyyi jàll waa ji ni ko hee sa yoon nekk Moussa xàccub direct ni ko til waa ji ni jànjang dee daal di daanu dee ab korose rek la ko door mu dee borom xam-xam ni ñuy wax ne sax da ko bëmax dóoru ko da ko bëmax rek nii loolu nag laa sokka ni du ak rey du ak jublu rey tey du ak tey fa qada alayhi waa ji daal di ñàkk bakkanam qaala Moussa mu ne hada lii min amali cheytaan cheytaane ko liggéey cheytaane ci am wàllu waa ji dee waa ji sama dóor bee ko rey innahu moom cheytaane aduwun noon la boo xam ne mu dëllun bu sànk la bu bon mu biinun bu fëste leer lan moo tax Moussa jiiñ jëf ci cheytaane dëgg la ab dóor mën naa rey nit ndax man nit mën naa dóor nit point boo xam ni dañuy tere ku fa dóor nit ci naw wala yu demee noonu mu dee waaye Moussa yooyu yëpp def ko ci te jubluwu ko woon a rey te beneen bi ci des mooy al anbiya yonent yàlla yi lu mel ni rey bakkan rawatina tay ko lu mel ni njaaloo lu mel ni bakkaar yu soof soofaan yooyu yàlla daf leen ci defal asma loola tax Moussa jiiñ ko seytaane waaye du moom te it ku ci am wàll la nag loolu bàyyi leen ci xel gis nga léeg-léeg ci ñi nga xam ne ñooy def bëri donte bëri nag dagan ñu xamaale ko mu leer daganul daganul a seetaan làmb dafa xaraam dafa xaraam a seetaan soo ne ma lu ciy tegtal dama naan daga dama naan la bul ma wax lu ciy tegtal danga naan ma yan ak yan ak yan ak ciy tegtal ndax li ma am ci tegtal yi ko araamal dafa bari bi ci njëkk mooy songoo di dóorante rawatina ci kanam sunna da koy teree dafa xaraam beneen bi ci des mooy góor bu dagan muy futti lu tolloon awraat ci ay poojam ndax loolu awra al faxidu awra loolu mooy li gën a dëgër ñaareel moom mooy góor bu dagan mu xool pooji moromum góoram ndax awra la ñetteel bi moom mooy maanaam tëgg mën cay def ak penc ma amul werante ci ne araam la ñeenteel ba moom lu toll di alquran ñu jàpp ko bind ko ci ab gilet di ko foyee kasar-kasaree aay ba mu neex la sol ko di fecc ak moom jëlam soow di ko njabaree sotteeku ca kaw alquran di ko tilimal yemul ca loola li gën a bon lu yàllay tere mooy di rey di soxor ci ki ngay rey jàppam picc ba ci digg mbooloo nga kutt ko nit lislaam dafa xam yi daje dafa araam te bari bëri moom bu fekkoon benn tegtal ci yi ma wax rek war naa tax ñu xam ne dafa xaram léegi nag dafa xew nit ñi nag def ko métier waaye gis nga ku ci yàlla dimbaliwut wallahi dee gu bon te ñaaw ngay dee xam nga lu tax mooy gis nga bët baaxut futteeku ba set wecc nit ñi di la xool lu bon a bokk yént yàlla men al aynu tudxilu rajula al qabra wal jamal al qidra bët mën naa topp nit ba dugal ko biir bàmmeel topp gileem bañ soos ko lekk gis nga bari waa na lu dal nit fekk boo ko seetloo ba ci biir bët moo ko jàpp maanaam nit ñi dañ naan kii daa cancer rek daa hémorroïde ak daa lii ak daa lee fekk li ko dal effectivement feebar bi la gis nga tey boo demoon hôpital mboolem feebar yu hôpital di faj bët dana ko waral ma jox la benn misaal nit ki mën naa am cancer te fekk cancer bi bët moo ko waral ñu indi médecin bi gën a aay ci médecin yi mu ñëw xool ko consulté ko ne effectivement cancer la mu jël mboolem jumtukaay yi faj cancer jëfandikoo ko te waa ji du wér fekk na wax na dëgg moom médecin bi cancer la waaye la ca ginnaaw cancer ba la xamut loola ko la ko waral sabab sax kon sunna day tere loolu Moussa alayhi salaam mu ni seytaane la gis nga ci bëri bu mën a wax da ngay gis nit xàcc rek dóor nit dóor bu simple fonkal mu daal daal fekk seytaan da caa ànd rek man ak njabar la rek li ñu tëdd la attaqué mooy seen yéer xeeti gàllaaj yi bon yooyu nga xam ne dafa xaram lool seytaane da ciy ànd mën nga koo dóor nit ki mu daan wala nga dóor ko nit ki mu dee fekk seytaane moo ci ànd li ma bëgg a misaal mooy li Moussa di wax tey beneen bi ci des mooy seytaane ku bon la ku saay-saay la su bëggee jaxase mën naa jàppale gis nga wallaay jigéen ji mën naa togg reer cere ba nuppi defar ko ba mu jekk ut ko seytaane ñëw sa lëx ci suuf lu mën a nekk ngoogu nag seytaane ñëw sa lëx ci suuf fekk li mu bëgg mooy teqale la yaag sa jëkkër te amul fu mu jaar léegi bu fekkee waajoo naqari deret la bu ñemee suuf si xolop xajam rek day jàpp ni yaa ko tey da ngaa sàggan gis nga jàpp defoon nga ko tey yaa ngi xam nga ne yaa ko tey fekk wallaay ndaw si def ko seytaane ko def gis nga seytaan mën naa bàyyi yonent yàlla beneen na boo te taalee sa néeg ba tëdd jot fayal taal bi seytaane mën naa yebal ndaw mu ñëw bërin aw xal lakk sa lal ku saay-saay la seytaane mën naa fekk jigéen ju jaamu yàlla mu ñëw comme seytaane day daw ci yaram comme ni deret di dawee mu ñëw seet ak sidit daal di koy fàcc sidit ga xotteeku bu sidit ga xotteeku ndaw si di génne deret 24 heures sur 24 xam nga lu mu ci jublu benn bu dee innocent nga da ngay naan ko jarul may julli nekk loolu àtteem dañ koy julli ñaari mooy bu dee innocent nga da ngaa am kersa nga rus koo wax su ko defee musiba ngi lay dal ba pare te waxoo ko beneen bi ci des moom mooy li mu bëgg mooy jaxase heure gis baax heure gis règle ak heure gis njor ngel mooy istixaaba yooyu yëpp ak saay-saay la ci gis nga seytaane da lay bàyyi ba nga lëqaam bay waaj a kàmbaar mu ñëw di ëpp ci sa suuf ngay sentir ni ngelaw daa génn ci yow bu ko defee ku dee ku ku ku doyee ni nga nga daal di génn dem jàppi waat bala ngay jàpp bay ñëw kàmbaar arnal raw la wala bàkk ràkk bu njëkk ba raw la wala far nga tàmm di julli mbooloo fekk looloo ko neex gis nga bandi bu mat bandi la moom iblis moo tax sikk sàkk yu mel nii saa bu la gaaree bul ko faale demal wala shakku min baadi lfaraaxi bi mubtilin yudaafu ala hada jamiu taabudi saa bu la wéree ni jàpp naa na nga bàyyi ba am lu wéree ni jàpp naa ba mel ni moom toj naa na toj na na wér ni jàpp naa wéree waaye di sikk sàkk nii rek yi affaire seytaane da koy def léeg-léeg am na ñoom yàpp nag da ngay dugg ci wanaw yi mu naan la sawaay sii dala boo toogal ba ci kanam xaaral tuuti boo jógee na toog sa tubay ji de fekk li mu wax lépp ay kàcc la nga toog ko ba jàkk jaraw la fekk loolu moo ko neex loolu kon innahu moom seytaane aduwun mudallun mubin noonu bu saay-saay la bu bon boo bëggee mucc yàgg sa njaboot ak sa kër dee fa jàng suratul baqara yent yàlla beneen kër gu ñuy jàng suratul baqara seytaan du fa jege sooy denc gis nga bi mu nekk nii ku saay-saay la mën nañ nekk man ak yow kese ci biir néeg ma jël sama dix mille francs ron ko ci dasaale lal bi yow rek yaa ko gis iblis ñëw ni ko coppet yóbbu yow boo dikkee automatiquement da nga naan diw moo ko sàcc parce que bi ma koy denc moom rek moo ko gis te fekk iblis a ko sàcc li mu bëgg mooy diggante bi yàlla Abu Hurayra yonent bi da koo dénkoon asakay tàndar ba jar mu bàyyi ba guddi jot mu seen benn waaye muy cëkkam cëkkam yi mel ni muus Abu Hurayra yoom ba jàpp ko ni ko niib téye ni ko yow looy def fii mu ni ko man la iblis déet mu ni ko mu ni ko man kat sama njaboot gi dañoo sonn damaa amut lu ma lekk wax ay wax fena fena fena fena fen xam nga ab jullit daa yomb na ab jullit moom boo yonentu la wax yàlla rek nax ko parce que ci yàlla lañ koy naxee moo tax ay saa gis waa ji di sàcc mu ne ko ragalal yàlla ni ngay jël moom ko yaa ngi sàcc mu ne ko eh sàcc ma Esa ne ko kon gëm naa li nga wax te fen loo samay bët parce que jullit ci yàlla lañ koy naxee subhanahu wa taala Abu Hurayra yéenam ko bàyyi ko mu dem bi mu xëyee mu ñëw ne yonent asalaam man de bii am na ku ñëwoon doon sàcc standard ba ji yonent bi ne ko kooka de loolu la wax mu wax ko li mu ko wax mu ne ko day kàcc dina dellu si waat Abu Hurayra ci guddi ga mu ni copp di ko xaar toog tuuti rek waa ji di dem kam tenk mi Abu Hurayra yor ni ko niib tee mu dellu waxal na mu waxat sama njaboot gi démb sama nangam tararara kàcca kàcca kàcca kàcca ma sol fa nopp Abu Hurayra ba mu fees Abu Hurayra bàyyi ko mu dem ba mu dikkee nettali ko mu ni mani dañu dellu si waat beneen ñetteel bi yoon waaye ba mu dellu see ñetteel bi yoon Abu Hurayra ni ko niib ni ko tey moom mënoo du ma la sax diglu ca yonent bi rek Iblis dofut yonent bi rek lay bañ a yegg si ci moom Abu Hurayra dañ ko dëpp kee taxaw ne Abu Hurayra def ko dëgg continué mu Iblis ni ko xoolal kat kaay ma wax la loo xam ni soo ko defee ñun ñii di sàcc ñëpp da ngay mucc ci ñun seytaan du la mën a la lor mu ne ko waxal mu ne ko gis nga booy tëdd nga jàng ayatul kursi mu ne ko seytaan du la laa yaqrabannaka seytaan seytaan du la jege ba keroog nga yeewu abu hurayra ñëw nit la ko yonente bi yonente bi reetaan ni ko sadaqaka wa huwa kasub kàccikat bi del kat ab kàccikat bi moo la wax dëgg tey maanaam li mu wax dëgg la waaye mu ne ko xam nga ki doon ñëw ci guddi gi yëpp mu ne ko déedéet xaw ma ko ne mu ne koo koy maam iblis saay saay bu bon bi kon ayatul kursi nit ki di ko musloo bokk na ci di koy musal ci moom gis nga seytaan dana woon sunu borom naay ndikkee nday joor càmmoñ kanam gannaaw li ëpp ci nit ñi dañaa fexe ba duñ la gërëm duñ la sant duñ la jaam gis nga seytaane bu la dikkee nday joor nga nekk gaynde mu dikk ca gannaaw nga dëgër lool mu bif jëme nday joor nga dëgër mu bif jëme càmmoñ nga dëgër danaan topp fee jonka di raxaar xam nga lu muy xaar mer sonn jaaxle mer sonn jaaxle soo meree occasion lay am pour dugg soo sonnee dëgg-dëgg occasion lay am pour dugg soo jaaxlee occasion lay am pour dund dugg moo tax yii saa bu gaaree nit ki rek na gaaw jàpp julli ñaar rakk dimbali ko suñu borom ndax porte seytaan yi tijjee ko kon jëf ji jëfi seytaane la innahu moom kat aduwun noonu la boo xam ne mu dëllun mu biin dafa sànq waaye ku fës la qaala Muusa mu ni rabbi yow sama borom inni man kat zalamtu nafsi damaa tooñ sama bopp faghfir li jéggal ma dëgg la Muusa jëf ji ci sababam la amee donte defu ko seytaane ko def waaye Muusa mu jiiñ ko boppam ndax nii la jaamu yàlla yi baax yi di mel mooy erreur bu amee da nga koy jiiñ sa bopp loolu defe naa leeroon na ci xisab Suleymaan alayhi salaam ak utum ñaareel bi mooy yu xeebu xeebu yi nga xam ne ñun ñu dul ay yonent dañ koy xeeb ñoom yonent yi duñ ko xeeb ndax seen màggaay moo tax ñetteel mooy saa bu aji gëm yàlla yégee ni def na njuumte ca saasa la tuub ca saasa lay dal di tuub inni zalamtu nafsi tooñ naa sama bopp faghfir lii jéggal ma suñu borom ni faghfara na ko ñu ngi jéggal ko ndax ci sababam la jaare fa xafara lahu sunu borom jéggal ko innahu moom sunu borom kat gafuur ak huwa al gafuur mooy aji jéggalee kon gi waaye arrahim aji jéggalaa kon gi arrahim ki bari yërmande sunu borom ku mën a bale la ku mën a jéggale la gis nga doomu aadama lu mu def ci ay bàkkaar lu mu bari bari bari bari bari ba ci rey bakkan gi ñuy waxtaanee na tuub dellu ci yàlla bàkkaar bi gën a rëy ci bàkkaar yi mooy ashir sunu borom nee na inna allaha la yaxfiru an yushraka bi wa yaxfiru ma duna zalika liman yasha yàlla moom lépp lu dul bokkaale bu ko nit ki tuubee dana ko ko jéggal waaye bokkaale yàlla bu ko nit ki tuubee bu yàlla du ko baal nit ki yàlla du ko baal nit ki nag mooy bu ko tuubut waaye bu ko tuubee balaa dee sunu borom baal ko maanaam yàlla du ko baale ak kuy bokkaale day tàbbi safara jubluwaay mooy su fekkee deewaale na ko léegi nag mu des meneen masala moo ndax ku rey bakkan dana dugg àjjana wala déet sunu borom mu ni wa man yaqtul muminan mutaammidan fa jazauhu jahannam ku rey bakkan te tey ko moom dee moo la koy tàbbi safara mu mel ni kon ku bokkaale dee moo la koy tàbbi safara ndax rey bakkan te tay ko mënees na koo tuubal wala déet am na ci borom xam-xame ñu ni ohun kay ki rey bakkan même ku ko tayee bu tuubee tuub bu dëggu sunu borom dana ko ko baal am na ñu ni déedéet ku rey bakkan te tay ko même bu tuubee tuubam ko du nangu Abdullah ibn Abbas bokk na ci ñu wax loolu te xam ngeen ni xeetu lislaam bi Ibn Abbas moo ci gën a dégg alquran bahrul umma wa turjumaanul quran bu ibnu abbas toog na di jàngale benn waaye mu ne ko waaw ku rey bakkan te tey ko ndax bu tuube yàlla dina ko nangoo tuuba mu ne ko déedéet ñenn ci borom xam-xam te loolu lañ sukkandiku ne kon jarul muy tuub waaye li nu gis ni moo gën a dëgër wallahu aalam ba pare mooy tekki waxu ibnu abbas ja mooy xam ngeen ni yàlla du ko baal ja mooy yàlla du baale am xam jàmbur bokkaale yàlla da ko def moo tax boo ko tuubee suñu borom baal la bakkanu jàmbar nga tuur te bakkanu jàmbur sunu borom moom la moom la moomale bakkan ba donte yàlla moom jaam gi kon yàlla du baale àq ab jàmbur te loolu lépp la àqu jàmbur sunu borom du ko baale kon ibni abbas dani bu ko tuubee yàlla du ko baal tekkiwul ni mooy daa gën a rëy bokkaale wala boobu mënta tuub ba kenn nangul ko li muy tekki mooy àqu jàmbur la ana yan jaamu yàlla nga fi mën a jaamu ba mu toll ni fay waajo di rey bakkanam la loolu lañ déggee ci waxam jooju wallahu alam su ko defee kon ki rey bakkan te tey ko kam rey moom dem na te faw nga fay ko est ce que di nga am ci ay jaamu yàlla loo xam ne boo demee àllaaxira fay ko desal loo mën a tàbbee àjjana ah dana jafe lool yonent yàlla bi nee na laa yazaalu almuminu fi fusxatin min diinihi ma lam yamassa dama mriin muslim saa boo xamante nii yow yaa ngi nii mosoo rey kenn liberté totale moom nga am liberté totale yàlla dalaa jox garantie liberté totale nga am kenn topp la lenn lu garaw waaye saa bu sa loxo laalee deretu jullit rek taq nga loo dul mën a raxasooti xadis boobu yontu moo ko sal sama saa boo tuuree deretu jullit te tey ko taq nga loo dul mën a raxasooti moo tax rey bakkan lu garaw la xoolal tey reyante gi ni mu baree gis nga léegi doomu aadama dañoo dem ba léegi sax dañuy likkitante ngay rey sa morom pour falu rey ko pour toog rey ko pour nangam gis ngeen li ma leen turoon ci das yi paas ci njabarkat yi ni ñuy def waaye bakkanum mbokkum jullit moom loo man ci moytandiku ci bañ koo rey def ko loo man ci moytandiku ku tayul nag moom kooku da ngay joxe diya ku tayul nag moom tayut diya atte kaay lislaam bu amee dañ naan ah bakkan bi kat nangami million lañ koy atte nga jël loola jox ko ay mbokkam parce que teyoo ko moo tax ah lislaam dafa am bunt yoo xam daf koo ubbi ngir jéem koo dab dabal wutal ko solution waaye bakkan bi dem moom koko tooñ nañ ko lool ki nga xam ne moo faat bakkanam donte nag lu nekk suñu borom wutal na ko sabab waaye yow fexeel ba sabab bi yow bu ko doon yow muy rey bakkan sunu borom mu ni Moussa mu ni qaala Moussa mu ni rabbi yow sama borom bi ma an'amta alayya ci li nga ma defal ci ay xéewal muy doole gi kàttan gi ak nubuwa ge xam-xam be xereñ gi falan akuna duma nekk mukk zahiran di dimbali lil mujrimina saay saay si wallaay sama doole ji jublu ma ci di noggatu nit ñee ka di leen wan ni maa bari doole déedéet maanaam mooy yàlla may la doole rek nga fa nekk fàq man ba am agresseur déedéet maanaam yàlla bu la dénkee doole loolu xéewal la bu la dénkee alal tamit loolu xéewal la bis day ñëw doole ji mu nangu ko bis day ñëw alal ji mu nangu ko kon jéem a fexe rafetal ci jamono bi la ko suñu borom dénk dara ëpp ko solo kon xoola ma ne rabbi yow sama borom bi ma an'amta alayya li nga ma xéewalal day falan akuna duma nekk zahiran di tooñ wala di féete kaw lil mujrimina ñi nga xam ne ñooy bandi yi di leen ko wan maanaam di di dimbale ñi nga xamante ni boobu mooy tooñkat yeeg bandi yi Moussa xaj ci daf ko roose door waaji waaji dee na Moussa mi doon làqatu àll neen bu dooree keneen waaja dee xanaa mu war a gën a mën a làqatu uhum kay fa asbaha Moussa yeewu nag fil madina ci dëkk ba xaifan tiit lool yataraqabu di catal bët di may bët gars yi ba xam information lu ñuy wax nga xam ngeen ni Firawna bu ko déggee dana gën a funki sinkalik mu commencé nag di di may bët catal bët yataraqab a taraqub mooy di di suivre nit ñi di leen bàyyi xel moo la moom romb rek mi ngi catal ndax ñi ngi wax ci rey waa ji wala déet gars yi daal dem yëgal ko Firawna ni ko am na ku dee ci dëkk bi de ci sa waa kër la bokk te Moussa ko rey Firawna mer ci lool lool gën a sinkalik Moussa xëy moom fil madina ji taraqabu di suivre rek di doxantuwaat fa ida alladi mu daal di gis ka nga xam ne istansarahu bil ams moo doon sàkku ndimbal ci moom moo doon xeex waa ji doon xeex démb yastasriqu mu di ko yuuxuwaat naan ko kaay dimbali ma damay xeexaat xam naa kii dina ku mën a tooñ la moom ndax moom moo doon xeex démb ba Moussa ñëw di ko àtte ba far rey fa bakkan moom mi ngi indil bëgg a indil Moussa problème Moussa di doxantuwaat séenaat ko muy xeexaat naa waaju ba rek histoire la qaala lahu Moussa Moussa ma ni ko hey innaka yow mii kat la gawiyun ku bew nga mu biin yow ku bew nga ah yow da ngaa mën a tooñ nag xanaa du démb yow laa fi romboon ngay xeex ah fa lamma araada bi donte wax na ko loolu ba noppi na ñëw di ko dimbali si waaye fa lamma araada ba nammee an yaqtisha ci fayul ko billadi ci ki nga xam ne huwa aduwun lahuma seen noon la ñoom ñaar waa ji yaakaar ni moom Moussa ci moom la jëm si ndax lim ko wax luy loolu waa ji farak Moussa nga xam ne moom lañ doon àtte démb dimbali ko Moussa da koo harcelé ni ko hey yow tooñkat nga laa xeexkat bu mag nga yow xanaa démb yow la doon àtte daal di koy joxañ léegi bi mu ko joxañee nga bu korosé wut si waa jëleen waa jii defe ni moom la ñuy dóor si ndax liñ ko wax moom moo feeñal secret bi ñu bari dañu jàpp ni ki mu doon xeexal moo wax Moussa ni ko da nga maa bëgg a rey comme ni nga reyee ba déedéet ndax histoire bi siiwagul woon ndax bu siiwoon ñu jàpp Moussa boo fekk na ki ko xam ah mooy waa ji la ji rey ji ñu rey xanaa ak kan doon xeexal boobu te kooka keneen la moom dee na ba pare moom waa ji bi ñu xàjjab korosé ñëw di àtte si moom mi farak Moussa jàpp ni moom la ñuy dóor si korosé bi ndax liñ ko xas ak yeddu ko rek mu ne ah Moussa man nag dooma ca rey comme ni nga ko reyee démb bakkan nag rek gars yi daal di koy dégg xam ni kon bakkan bi dee démb Moussa moo ko rey moo tax suñu borom ni falamma araada bi mu nammee an yabtisha mu daal di fayyu billadi ci nga xam ne huwa aduwun lahuma mooy seen noon ñoom ñaar qaala ya Moussa mu ni ko ey Moussa aturidu an taxtulani yow mbaat danga maa nar a rey kama qatalta nafsan bil amsi comme ni nga reyee démb ki nga doon àtte ah Moussa yow nag moom in turid illa an takuna jabbaran fi ah yow mbër mbër loola des ak rayaate bakkan te xoole moom la doon Moussa doon dimbali si de moo tax léeg-léeg di ngay faral di dimbali nit ba pare mu indil la coow lu dul jeex kii Moussa da ko doon dimbali léegi siiwal na ko indil na ko coow ba pare wëlbatiku naa ko in takuna jabbaran fil ard moom mi ngi fayu kat gis nga de xoolal rek moom la Moussa doon dimbali yàqal na ko siiwal na ko pare daan daan fayu mu ne ko innaka la ghawiyyun mubin mu ne ko yow in takuna illa an takuna jabbaran fil ard waaye da nga bëgg a nekk mbërmbërlu ci kaw suuf wa ma turidu yow kat bëggoo an takuna min al muslihiina kuy defar gis nga foo fekk ñu rëy làmmiñ ba mel nii soo fekkee coow la ñoom ñoo koy def xoolal rek simla ak saara nee na fi Moussa da ngaa bëgg a mbërmbërlu da ngaa bëgg a yàq ci kaw te moom kat mooy yàqkat bi kat ndax moom moo fi xewee dem ñu koy àtte ba rey bakkan mi ngi nii di xeexaat tey te démb ak tey soreewul mu ne ko wa ma turidu bëggoo an takuna min al muslihiina nga bokk ci defarkat yi bi loolu amee Moussa ndeysaan daal di yëg ni nag yëf am na xabaar baa ngi tàmbalee wasaaroo ñu yëgal firaaw na nag ci lañ doogee ci noonu la foofu fa lañ yëgalee firaaw na ni ko am na ku dee démb am na ku dee tey ndekete yoo ki dee démb ak ki dee ah dëgg am na ku dee démb ndekete yoo ki doon enquête Moussa moo ko rey ndax ci xeer ak tey ba lañ ko xamee ah léegi nag firaaw na nag daal di commencé nag di sënkaliku nag daal di woo njaboot gi suq yi ne leen léegi lan ngeen xam ci mbiram Moussa gis nga suq bu la ragal ëpp naa diisoon parce que du la wax jàmm ndax bu lay wax day sóoraale sa bànneex loolu mbooleem ku jiite war na koo bàyyi xel képp ku jiite aw nit booy diisoo da ngay diisoo ku la ragalul waaye gis nga ki la ragal moom boo ko laajee xalaat dafay profité pour wax la lu la neex moom nga gisoon gars yi naan ko nahnu ulul quwwatin wa ulul ba'sin shadid mu ne leen déedéet du noonu de innal muluka iza daxalu qarya moo tax am sa xelum bopp baax na lool. Firawna daal di woo suq yi di leen kaay leen comme ñoom bu Firawna sëqatee sax ñu jaawale ko tisli ni ko yow am kàllaa ah ñu ne ko liñ ci xam daal mooy rayal Moussa mu jeex ay ay ay ay négocier ay wootante bii jëru ko nan ko rey mu jeex moo tax it di diisoo ku bon baaxul dara. bariwaa na njombe yooyu dugg soo paree rek fekk ñoo la fa digal ñoo yëy say nopp ah bu ko defee mooy li ma doon wax benn fan yi passé rek ngay fekk téeméeri kër yu taati ndox mi ñu ñëw ñu juróom-ñaari kër la de juróom-ñaari kër rek moo taati ndox mi jeex na gis nga ngay fekk waa yoo xamante ni dañ kaa dóor ba mu dee ñu rey ko ñu ne déedéet daa bakka salu dee genre yu mel noonu loolu mooy nit di diisoo ku la dul wax dëgg ah bi loolu amee fa xaraja minha Moussa na daal di génn ci dëkk bi fa xaraja minha Moussa daal di génn ci dëkk bi ah lu ci topp aywa wa jaa ka mu daal di dikk rajulun benn waay wa jaa mu daal di dikk rajulun benn waay min aqsal madinati jóge ca fa gën a collas dëkk ba ca kaw yesaa mi ngi dox di waaxu lool yàkkamti qaala mu ni ko yaa Muusa ay yow Muusa inna almalaa waa kër firawna yatamiruuna bi ka ñoo ngi lay fexeel li yaqtuluuka pour ñu rey la faxruj lakk gaawal génn dëkk bi gaaw inni man mii kat laka ñeel la min annaasi xiina ci ni ñu lay laaxe biir laa bokk aka am solo gis fu ñuy waaja dokkatoo sa mbokkum julit nga gaaw dimbali ko nekk xabaar yaa ngi wër ñi ngi Moussa yataraqab waaye yëgut lu xew benn waay bu yëg ni ñi ngi koy kereel mu gaaw jaar ca gannaaw dëkk ba seet yoon wu gën a gaaw ci yegg ci Moussa ñëw ni ko Moussa fi mu ne nii moom génnal dëkk bi gaaw waa kër Firawna ñu ngi lay wër te buñ la gisee dan lay rey te buñ la gisee dan lay rey ak am solo waa jii nag ñu bari dañ koy jaawale waa ji mu'minu Ali Yaasin mooy waaja doon wax naan nu mu tuddati ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah ca surtu xaafir dañoo nekk rajul rajul rek waaye li gën a wér mooy duñu kenn ndax waa ji dafa laaye biir Moussa avant ah Moussa di am nubuwa gi ndax ba Moussa di rey booba joxaguñ ko nubuwa gi waaye waa jëlee bi Moussa ginnaaw nubuwa gi la ñaar yooyu rek moom ngay seet def lu seetlu rek xam ni kon duñu kenn ñaar la fa xaraja minha Moussa daal di gaaw génn dëkk bi xaaifan tiit lool yataraqabu tey may bët dëgg ca tal bët lii la wolof yi naan daw ba raw ci ngóor la bokk xam na dëgg de am na foo xam ne boo fa xasee toll àbbal say tànk li kay naa àbbal njool mi nga daw waaw mbir day toll foo xam ni dawa koy faj dawa koy faj de boo dawut da ngaa xaru gaa yaa ngi nii ñëw si dañ may rey si nga am foo mën a jaar pour daw dawal boo rëccee baax na boo rëccul sabab lu la waaye wàkkiilu naa ci yàlla rek xaaral ma xaar yàlla moo may aar mbokk yi mbaa xam ngeen ni yàlla balaa mu laa aar faw nga def affaire du la nduggali indil la toggal la ngay sax tamit di lekk déedéet da ngay dem nduggal sa bopp toggal sa bopp ba lakkaale ca togg ga sàq mi ca sonn ca nag la sunu borom la nga mënut nag muy reesal sunu borom defal la ko sunu borom doo doo defal li nga war a defi yow déedéet Moussa ak li muy dëgër dëgër fit mu daal di daw ba mu dawee xaala mu ni rabbi yow sama borom najjini musalma min al qawmi zalimina ci nit yi tooñkat yi gis nga saa boo jàqee ci say noon su ne dalay digal nga ñaan ñaanu sunna yi yàlla musal la say noon gis ngeen yentu yàlla bi kam doon nit li ca xeet yu yàgg ya ka buur ba naroon a rey ba boole koog waa géej ga ni leen dem leen ngeen labal ko ca géej ga mu dem ba ca géej ga mu ñaan yàlla musal ma ci samay noon gaaya lab moom mu mucc mu ni buur ni leen yéeg indi meneen mbooloo yéegal leen ko ci kaw montagne ba wax ko ñu yéeg ba ca kaw mu ni yàlla musal ma gaay taraxiis daanu mu des fa gis nga kon yàlla subhanahu wa taala képp kuy xett li ko kuy làqu na làqu ci moom Moussa mu ni rabbi yow sama borom nag ni yàlla nag ma musal min al qawmi zalimina ci nit ci tooñkat yi mooy gaay yi nga xam ne ñoo koy dàq gis nga yonent bi saa sallam sallallahu alayhi wa sallam bi gaay yi nee dañ koy rey yaasin wàcc yonent bi jàng ko ba yegg si ca paas bu njëkk ba fa mu yem mu sànni ko ci suuf génn fekk le sànni leen ko nii gaa ya di nelaw mu joggi seen bopp ya jàll dugg ci àll bi xiif ak mar ànd ak Abubakar war a dem fii sàngalkam jaar yoonu góor dem ba yegg cinquante doo ko dëppaat ñëw sàngalkam gis nga yëpp ay pexe laa ki technique ngir bëgg a mucc kon samar lu faw jullit di ko def te day muus nag yonent bi daa jub jëm Madina mi ngi mel ni bu doon fii la jëm sàngalkam léegi day dem ba gorom jàll ba bayaa dem ba cinquante doog a dëpp ñëw lu tax parce que gars yi xam nañ ni bu yonent bi départ rek Madina la war a jëm kon bu ñu toppee tànk mu jëm nii dañ naan kon kii jëmul Madina fekk fa la jëm loolu mooy alxarbu xidaa xeex moom comme ci xeex lañ nekk naxante la kon faw jullit di sabab lu bokk yi faw ngay sabab gis nga faw nga jël say matukaay ba mat ah bu jaree yor yat yor ko bu jaree yor pistolet yor ko bu jaree yor paaka yor ko parce que fam nekk loolu la laaj lum la laaj jox ko ko ba mu mat doo ko wax waakiilu naa ci yàlla waa ji daa ñëw ca Madina dugg si ci jàkka ji yonente bi ne ko yow xanaa jógee ko sori mu ne ko anan kay loo war mu ni gileem ana gileem gi mu ne ko wàkkilu naa ci yàlla bàyyi ko fee mu ne demal nga yeew ko ba mu dëgër nga doog a wàkkilu ci yàlla looloo gën a wóor de yeew ko ba mu dëgër doog a wàkkilu ci yàlla ah sunu waram mu ni Moussa daal di génn nag léegi daw àbbu njool mi walamma tawajjaha ba mu jubloo tilqaa madyana jëm fa nga xam ne mooy madyana foofa la ko sunu borom gindi qaala mu ne asa aman na rabbi sama borom nangu na saak ñaan ay yahdiyani dina ma gindi sawa assabili yoon wi gën a jub am na ci borom xam-xam ñuy wax ni yàlla dafa yabal ab malaaka ci moom malaaka mee ko déey ni ko jaaral fii nga dem Madiyana boo demee di nga fa fekk góor gu baax góor googu nag mufassiru nii juuyoo nañ ci juuyoo gu yaatu kan la li ëpp ci li mufassirun yi wax ak li nopp yi di dégg mooy Shuayb la loolu moom li li ëpp ci mufassir daanaka xaw tuuti ko ma ne mbooloo genn wàllu mbooloo ma ñëpp nee nañ Shuayb la ñooñu am nañ amal nañ ko ay tegtal am nañu ne déedéet du Shuayb wax ji ca nekk rek dinaa la wax ay tegtalam waaye daanaka xam ko amul solo bu ñu ñàkkee xam ne Shuayb la. lu mu nuy wàññi dara bu nu xamee ni Shuayb la lu mu nuy doone sunu bindab tafsir bi dara moo tax sunu borom comme amul njëriñ xam ko leeralul kum doon am na ñu ni Shuayb la ndax Madyana fa la yàlla yónni woon yonent bii ñuy wax Shuayb alayhi salaam te moo juróon ñaar ñëli indil ko ay tegtal yu bari am na ñu ni déer du Shuayb ndax Shuayb yonent la te Muusa di yonent te Shuayb Muusa ko gën fuuf kon yàlla du bàyyi Muusa muy dem te Shuayb ma nga xam ne Muusa ko gën mu di ko jëlub suq di ko téye di ko ab surga ay at mu mel ni doxandéem bu amul benn njariñ sunu borom aw doxalinam du wóowu kon du Shuayb waaye wax jooju it man damay wax ni wax la joo xamante ni mënees na koo tontu ndax tontu gi mooy wax dëgg yàlla bu dul Shuayb kon kan la bu dee ngëneel doon nga téye tax ñu téye mu nekk Shuayb kon dama naan keneen ku mën doon Shuayb moo la gën loolu tamit bàyyi leen ci xel moo tax waxi borom xam-xam la nga gis ci ay mbir ci biir nag ndax du Shuayb parce que Shuayb Muusaa ko kenn mu di ko téye suq ay at mu di ko sàmmale